de lii mooy personnalité. personnalité dëgg mu ngi nii barke borom Tuubaa. boo nee sëriñu daara bi wala mbiru alxuraan dañ leen di bàyyi yéen ngeen di débrouiller seen bopp duñ leen dimbale subvention bu amee itam néew na te waajur yi aussi taxawaay bi ñu war a taxaw ba fexe ba kuñ jox sa doom ñu jox la moyen yoo xam ne di nga ko mën a yor amul donc loolu yëpp boo ko ëmbee ci kaw gàttal rek ngeen xam jafe-jafe bi ngeen am ci kaw yoon wi mais li ci am solo rek. ni ma ko waxee rawatina ci yoonu murit mooy jàngale alxuraan defar taalibe yi defar doomu aadama parce que éducation bi day ànd ak xam-xam bi te boo amee xam-xam te amoo éducation te éducation boobu du dara lu dul yaru lislaam ñu yar ci lislaam ni ngay war a respect bi nga war jox sa kilifa ak ni ngay toogee boo toogee ak sa sëriñ ak même booy xewlu sax booy xewlu sax dañ lay jàngal ñi ngay xewlu loo loolu yo da koy jàng ci loolu mais loolu xëy na loo xam ne ñun ci suñu biir la nekk mais jafe-jafe la mais jàpp nañ ne daal formation yi ngeen am dina tax ba ngeen gën a affronter liggéey bi ngeen di def te xam ne aussi gàllankoor boo xam ne mos naa ko wax fii ya suñu borom mun na dem ba teggil ñu ko mun nañ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من abonneel bës cloche notification bi ngir jot suñu vidéo lam yanfa'il dal